alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant borom bi subhaanahu wa taala seer namul benn buur bu war a jaam bu dul moom noo ngi baalu àq ñëpp te di baalu àq tey ñaan buur bi subhaanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñu ñëpp bokk yi sunu xutba tey mooy xurmatu ramadaan mooy ormay weeru koor ormay koor xam ngeen ne weeru koor weeru tanaafus la njëkka njëkkante wa bi dalika fali tanaafisil mutanaafisun lan la ñuy njëkkante ci biir weeru koor mooy aw yiw ak jëf ju baax ak lépp loo xam ne nit ki su ko defee rek mu man koo faral ñaaw téefam yam amoon laata muy dugg ci koor gi ak faggu lu rafet mooy lépp loo xam ne lu baax wala lu rafet nit ki man koo jariñoo mu jéem koo faggu waaye tamit tuubal borom bi subhaanahu wa taala ci bépp bakkaar boo xam ne mas na koo def jàpp ne bakkaar la boo xam ne buñ ko bindel mu tuubal ko borom bi subhaanahu wa taala ak bépp jëf boo xam ne amal musin mooy jëf bu ñaaw jëf ju ñaaw jum jëf wala wax bu ñaaw wala jukka joo xam ne ne xam na ne jukko ju ñaaw la ca mu nekk ci jëmmi boppam mu fexe ba nu ko sun borom subhaanahu wa taala jéggale loole mu jëm koo def bokk yi ñu bari ci jullit yi woor xamuñu dëgg-dëgg yi maanaam daraja wala kem bi nga xam ne moom la weeru koor wi am te ñu ci barit taxawul ci di def li nga xam ne mooy li defu ci biir weeru koor fexe ba weg ko woo xam ne danga ko waggar màggal ko xam na weerul màggal la waaye da nga ko ormaal wormaal joo xam ne ku la gis xam na ne yow nii saw doxalin ak saw jëfalin wormaal nga weer wi di weeru koor waaye bañ koo def rek comme yeneen bis yi nga xam ne ñooy fi jaar gannaaw bi weeru jàllee wala nga jàpp na rek weer wi ñàkk lekk la ak ñàkk naan rek li tàmbalee fi fajar xare ba fi bi so loolu ab jullit du ko jàpp day jàpp ne bu mu jàpp na rek koor ñàkk a lekk ñàkk a naan la ñàkk a lekk ñàkk a naan ci bëccëgu weeru koor bokk na ci koor waaye boroom xam-xam yi dañ koy séddale ci ñett dafa am sawmul awaam am sawmul xawaas am sawmul xawaasul xawaas benn bu ci nekk bokkutoo bokkut sa moroom dara jojoo fii ndax sawmul awaam li koy li koy yàq mooy mooy koor gi ñu nekk li koy yàq mooy lekk naan jaxasoo bëccëgu weeru koor ak yeneen yu mel noonu yooyu moo ñoo moo ko yàq waaye sax bu dee sawmul xawaas dafa am lu ko yàq yu bokkut ak lu mel ne fen jëw ak yu mel noonu bu dee sawmul xawaasul xawaas dafa am lu koy yàq moom it li yàq sawmul xawaas da koy yàq yeneen dollu ko waat ci yoo xam ne bokkut ak loolu kon loolu mu mën koo ràññee jàpp jàpp na rek ñàkk lekk ak ñàkk naan dong la moo waral ñu ci bari ci jullit yi dañuy daggal ci seen bakkan xotti war may koor ci ay wax wala ci ay jëf dëgg-dëgg kiima bi ko war a jox doye bi ko war a jox sax duñ ko ko jox dun ko ko jox mukk am na ci ñoo xam ne bokk yi jàpp nañ ne koor mooy nelaw nelaw rek ba ca gépp nga di ko nelaw wala tàyyeel nga xam ne doo déggu nodd mukk ba dem julli ji yow dangay ngay golobal li tàmbalee suba baggee yaa ngi koy julli ci guddi gi bala ngaa tëdd doo julli suba doo julli tisbaar doo julli saan doo julli timit doo julli gee ngir lan ngir jàpp na yow koor nelaw rek dangay nelaw rek ndax am na ci ñoo xam ne dañuy wax ne ñoom buñ wooree dañuy tëdd yi nelaw rek ba dog jot nga xam ne duñ yëg sax mettitu koor loolu nag doyadil koor la kon li ko li war nit ki mooy saa yi woore rek waxtu jaamu yàlla wu jot bu fekkee ne fekk fekku ko ci lenn loo xam ne mën na ko empêcher mu bañ a jaamu ji yàlla na bàyyi la muy def lépp dem jaamu ji yàlla bu dee julli ji mu dem julli ji fa mu war a julli ci jàkka ya am ci ñoo xam ne ci garam place yi la ñuy nekk di xotti war may koor ña werante ña ngay ña ngay yuuxu ña ngay saagaante ña ngay ŋàññante moo waral bu ngeen demee ci marché yi léegi-léegi am na ci grand place yoo xam ne ab jullit dëgg dëgg dëgg waru fay toog muy barab bi liy yootee ka dam yi léegi-léegi ca kàddu yi bokk yoo kàddu yoo xam ne maa maar ay timis lu ca boo dee seet ña fay toog ñëpp ay muskàllaf lan léegi-léegi sax bi jaaw nga fay kenn ku naan naan doxal dóor naa fii kii naan dóor naa fii dóor naa fii dóor naa fii léegi-léegi ñu xuloo ca wala ñu coow ca ca le ci jamonoy weeru koor yi ba bu ngeen demee ci marché bi fekk leen fa ca dañuy wax na doonoo woor bokk yi xoolal loolu kon ŋàññante ak xuloo ak saagante ak wax lu yam nit ki bu waree da koy da koy moytandiku moo tax yonent bi sallallahu alayhi nee na woon charrul majalis al aswaaq wa turuq wa xayrul majalis al fa in lam tajlis fil masjid falzim aw kama qaal yonent bi sallallahu nee na jataay yi ci jataay yi mooy jataay yi mbedd yeeg marché yi ndax boobu dee ci marché bi bu la yàlla dimbaliwut sa bët bii ci lu araam rek lay dëkk sa làmmiñ wii ci wax lu ñu dëgg rek lay dëkk man nga fa nekk di jëw wala nangam ak nangam liggéey dafa yóbbu demal liggéeyi yam ci sab liggéey bu sab liggéey jeexee nga wàcc dem ñibbi waaye dem nekk ci grand place boo xam ne lan fay wax ak lan fay def daray dina nekku ca ca nga ne da ngaa woor loolu lépp mën naa yàq sa koor mën naa wàññi sa tiyaabay koor moo tax yonent bi sansam wax ne koor feg la fegg feggu feggukaayu nit la ci sawara asaw mu junna ay wiqaaya wiqaaya la mooy fekkukaayu nit ci sawaral kenn képp kenn ci yéen saa yi wooree bum jaxasoo bum bari coow bum nekk sa naka du noonu bu nit dikkee saaga ko wala mu wax ko naqari nana ko indi saa yi man damaa wor man damaa woor am na ci ñoo xam ne bokk yi ñu ngi xotti wor may koor ci ñàkk wax dëgg léeg-léeg gis ku ne damaa woor ba noppi ñëw wax ak yow wala jëflante ak yow la muy jëflante yow dara du ca dëgg loolu bokku ci ormay loolu bokku ci ormay koor wala mu jëflante yow ci jaay ak jënd ba noppi xis am ca wala xadia am ca wala xilaaba am ca te yëpp dafa xaraam ci am njaay loolu bokkul ci war koor nit ki bu fekkee dafa woor li muy def ak li muy jëflante ak doomu aadama na ci sedd yàlla bu dee jaay na ci sedd yàlla bu dee jëndi na ci sedd yàlla kàddoom it na ci na ci sedd suñu borom subhanahu wa taala kon alxish alqadia wal xilaaba nga xam ne xeet yooyu nga xam dañ koo tere ci am njaay nit ki bu wooree da koy maytandiku ndax bokk na ci li xotti war may koor ak lan zaada de zuur mooy di seere ay caaxaan loo xam ne dara du ca dëgg nga bëgg koo seere ak di lekk alali doomi doomu aadama yi ci neen leb nga nit na ko lebal ma lu ma dogoo bu subaa danaa la fay mu lebal la nga dem dogu ji ci àllëg sa mu ñëw laaj la ko nga bañ ko koo jox mu topp ko ba ko weeru dee fayoo ko ko nga xam ne kon yow léboo woon ngir fay waaye dangaa leboon ngir ñu njaaj ca da ne la nga koo dogee ne la wér na sa koor googee alali jàmbur nga doge loo xam ne borom mayu la ko kon ak lu am wàllu naas képp ku koy def ci biir weeru koor ci lu dul tey ji bakkani doomu aadamam bu borom alal ja yaa ngi xotti war may koor bokk na ci ca liy wàññi yoolub koor moo tax yonent bi sansam nee na képp koo xam ne bàyyi woo waxi mbóorant ak jëf ja yàlla amul soxla ci sa ñàkk lekk ga ak ñàkk am na ci ñoo xam ne bokk yi su weeru koor jotee nan bàyyi xel ne weeru taxaw guddi la ak di naafile di ànd ak imaam comme ni nga ko mane yonent bi saasam nee na képp ku ànd ak imaam salawaatu tarawih yi di naafile ba naafile ga jeex nga sëlmal dem sa kër nee na suñ borom dana la bindal li des ci guddi gi yëpp yoolu ku taxaw guddi gi ba guddi gi ba guddi gi jeex moo waral ñi war a dem ca jàkka ya di fi la ji jàkka yi nag fi mu toll léegi wéet na ubbi tege dong nga gis nit ñi ne ci fit di raj daj doo koo ne génne sax koo ne taxawal ne mun a fii laay taxaw ubbi teg wépp benn fan ci weeru koor ñu war a naa fi ci jàkka yi foo dem boo sànnee battu mu tag benn fan ñaari fan ñetti nit ñeenti nit juróom nga sa jàkka ya ñun ñu defa naafile ca ñu ci bari dan naan kaamil bi ñu naafile dafa gudd ca ña ngay lijjë ña ngay sonn sonn coono boo xam ne yàlla nekku ca yonent bi nekku ca tiyaaba nekku ca ca kenn du leen ca fay ëllëg ca loolaa gën a métti taxawaay bi bi niy taxaw ngir julli juróomi rakka yooyu ci alquranul karim jooju moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man xaama ma al imam hatta yansarifa kutiba loo qiyaama laylatin képp ku ànd ak imam naafila ba imam jeexal nee na gu la def sa guddi ga yëpp suñu borom dana la ko bindal yoolab ko taxaw ba guddi gi jeex bokk yi am na ci ñoo xam ne jàpp nañ guddi weeru koor guddi ñàkk nelaw la wala ne ci benn garan place di coow wala dem ci fu ñuy fecce walla toog ci maanaam mayka yi mayka yi wala maqaax yi léegi naanukaay yi kefe yi dégg ngir lan boo xam ñoo dañuy rey temps bi déedéet demal nga rey temps bi ci jaamu yàlla ci jàng alquran ci sikkar ak leneen ak leneen am ci ñoo xam ne bokk yi film yi rek lañ nekk di seetaan seenu commande lan yore buñ xësee xëy suba tëdd ci lal bi jul jóg film bu jeex ñu jàppaat beneen film théâtre bu jeex ñu jàppaat beneen théâtre ba jant bi so kooku lan lan lan la defal ci bëccëgu weeru koor gi lan la defar bëccëgu weeru koor gi kon nan moytandiku woor ba noppi na ci film yi di seetaan wala ñu nekk ci théâtre yi di seetaan ca man koo jaamoo ji borom subhanahu wa taala loolu sax tëdd nelaw ab diir moo ko naw saa nawmu saimi ibada nelaw yi ki woor ak jaamu la bokk yi woor ba noppi taal sab tele film bi jeex nga dem beneen dégg nga seetaanoo kuy waaraate seetaanoo kuy jàngale seetaanoo kuy tafsir quran seetaanoo dara yow daal yaa ngi film yi rek dóor na koog jam na koog fetal ga nam ko defee rek yooyu rek nga nekk film bu ci nekk nga daal dem rek loolu bokk yi aji woor ji da koy moytandiku te gis nañ ne ndaw ñu bari buñ wooree au lieu que ñu dem ca barab ya nga xam ne danañ fa jëlee xam-xam wala daan fa dolli ko duñ ko def dañuy tiim télé ba rek di jàpp film bu jeex ñu dem ba ca des dégg nga théâtre bu deex ñu dem ba ca des leneen ak leneen ñu di ko def wala bu gudd jotee ñu dem gannaaw bi naafila ba noppi ba tëdd jot au lieu que ñu dem tëdd duñ tëdd dañuy ne ci mbedd mi ci tànqal dañuy rek fan yii da gis sun yee bi ñu nekk kuy jóg quatre heures da gone yi ay bëri gone yi yor nga xam ne ñoom xam nga ne ñii moom nelawul gone yi moom nelawul ci mbedd leen fanaan tànqal nit ñi tëg tëg tël tël boo leeg ay way boo leeg ak way ay way barki barki démb la kenn ci sama njaboot da cee bokk waaye damaa bàyyi ba fajar jot ba may dem jàkk ji damaa dem dóor ko yan na ko dégg naa la ngay këng-këng yi waaye jugoon ñu dem jàkk ji nga julli ji wala nga dem jàpp julli ji du nelaw du nelaw ca waxtu julli jot du dem julli ji ba noppi bu fajar jotee ñuy tànqal doomu adama yi rëg rëg rëg ju daa dag fekk ña war a yeete yeete nan ngir lan ngir ne ci garan place ak place yi bokk yi kon nan seetaat li nga xam ne moom leen war a dundee ak di ko war a leen ci bëccëgu weeru koor moo tax waykat ba ne na bul def mukk weeru koor muy weeru mboorent ne loolu dalay alak waaye na xam ne weeru koor kenn du am tiyaaba yi mukk lu du da koo woor ba noppi ñoŋal ko muy waxtu yoo xam ne waxtu ibaada nga koy def ak di jàngi alquran bokk yi fi ñu mujjantale mooy weeru koor du weeru aada buñ ko jàppee ne weeru aada la weer la woo xam ne suñ boroom moo ko sàkkal at mu jot mu ñëw ay bisam moo gën bis yu dul mel yu dul moom ay waxtoom ñoo gën waxtu yu dul moom ay guddeem ñoo gën gudd yu dul moom nelaw ci ci bëccëg bi liñ ci mën a nelaw balaa waxtu jaamu yàlla jot moo gën nelaw ci beneen bëccëg bu dul moom ndax nawmu shaaimi ibada wa sumtuhu tasbih wa duaahu mustajaba kiy nelaw ci bëccëgu weeru koor nelaw yooyu suñu borom da ko ci binde yoolub jaamu yàlla noppem nga suñu borom da ko ci bindeel kuy sàbbal yàlla lum ñaan borom bi subhanahu wa taala defal ko ko kon maa ngi dénk sama bopp di leen dénk nan fa góor góorlu sàmm ormay weeru koor ca bañ di xotti maanaam ormay weeru koor xotti weer ormay weeru koor nag yii ma leen wax lenn la ci waaye bari na ci bari loo xam ne doomu aadama yi ci boppam yi ngi koy def bokk na ci fi ci mujjante la mooy da ngay gis ñoo xam ne buñ xasee dog ba nopp sol nañ seen équipement nee na non dañuy sport gi dañuy wàcc ji suukar si di daw di def ay mouvement ba julli timis weesu julli gee weesu dégg nga naafila weesu ca bu ñëwee duñ julli waa bokk yi ki taxaw kaani bi di ko naafila juróomi rakka yi bu fekkee da bëgg a dàq suukar rek juróomi sëlmal rakka bu ci nekk ñu jàng rub wala nisu dégg nga nga def ko juróomi yoon sëlmal def su laa witr boo jógee sa kër sa suukar dana wadd booy def sa kër sa suukar dana wadd moo gën na ngay dal dang dang di yow dang yow kenn dàqu la kenn dóoru la kenn tiiwu la nga sol sa équipement di sànni tànk ko wadd waddee ko jog jog jogi naan damay dàq damay damay wàcce ji suukar si demal wàcce ko ca jàkka ja amub yool mu ëpp doole nga dem di ko wàcce ji ci daw ko di daw loo xam ne kenn dàqu la yàlla noonu yàlla da defal dëgg ak topp rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna al-ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna al-ijtinab wa ma dhalika 'ala Allah bi 'aziz yaghfiru Allahu lana